réewum Sénégal delloo na njukkal ñi nga xam ne moo di soldat sénégalais yi nga xam ne ñoo faatu ci bi ñuy amal opération ci réewum Mali. jëwriñ bi ñu dénk forces armées di maître Sidiki Kaba jiite woon na li nga xam ne moo doon cérémonie levée de corps bi. Parti à la fleur de ci seen digg ndaw ci ngeen faatoo ci coolu xare bile askan wi daan leen dellu njukkal bu baax loolu sax daf ñuy fàttaliku risque bi nga xam ne daal moo am ci wàllum engagement ci soldaa ndax ku ci nekk dak da ngay dem ndax doo xam ndax da ngay del seen déet kon nag défense bi waaye tamit wàllum patrie moom yéen a ci jël ndam li ñetti jàmbaar yooyu nag ñu ngi bokkoon ci mission MINUSMA nga xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba jàmm dellu ci waat réewum Mali. suñu engagement ci stabilité waaye tam ci wàllum jàmm ci Afrique looloo euh, juddul tey da ko tàmbalee atu 1960 ba léegi Sénégal nekk jeune république la doon soog a am indépendance am ci la ñu soog a yóbbante premier contingent ngir ñëw yor wàllum jàmm fa xam ni moo di Congo ci bannière Nations Unies 2. ci bi ñuy amal cérémonie bi nag maître Sidiki Kaba fàttali na engagement yi nga xam ne nguurub Sénégal jël na ko ngir taxawu famille ñi nga xam ne moo di Eugène Idriss Mingu Ousseynou Diallo ak Pierre Tama Boubane. nguur gi jël na mesure yëpp waaye tamit delluwaat ci seenu ko njaboota ngir mën leen a gunge waaye tam fexe ba lépp lu nga xam daal ci wàllum soxla la ñu mën koo faj te loolu sax Nations Unies waajal na ko. soldat yooyu nag ñu ngi teew ci réew Mali ngir fexe rek ba jàmm dellusiwaat ci réew ma ci loolu la ministre Sidiki Kaba xam ni njëriñu Sénégal la ngir jàmm dellu ci waat ci réew Mali.